miin a gis rek di nga xamante ni ci ndigalug sëriñ Amsatu Mbàkke ci la ñuy dox muy sëriñ Cheikh Mbàkke ak sëriñ basiru Mbàkke xam naa ne duñu guddal kàddu yi dañuy jox sëñ Bass rek mu wax tuuti rek ci lii nga xamante ni mooy wàccaayu lii nga xamante ni mooy màggalu xasida gi ana ban taxawaay lañ ci am aousubillahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ñu ngi delloo nuyoo bi yëpp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo taxaw dañuy wax ci ndigalam di nuyu mboolem ñu ñu seetaan ñëpp euh, di wax rek lu jëm ci bis bi nga xamante ne moom nga wax léegi dañ koy waajal te mooy màggalu xaside yi di wax ne dañoo war di préciser bu baax a baax ci bisu xaside wala màggalu xaside yi mooy yeneen. kuréel yi yeneen yi ñuy def ci dëkk yi yëpp ci Sénégal ak Afrique ak Europe ak yëpp mm-hmm. waaye lii nag mooy màggalu xaside yi mm-hmm. moom la waajal mu war a doon le 16 décembre incha allah mm-hmm. samedi bi ñu jëm ñu koy defee fii ci kër Serigne Hamsatou Mbacké moom sëñ Souhaïbou sëñ Hamsatou nag comme ni nga ko xamee ñëpp dundam gépp Serigne Touba rek la ci liggéeyal ba mu xàmmee ba tey ca la nekk liggéeyal yàlla liggéey la yonent bi liggéey sëñ Tuubaa jaarale ko ci arxuraan ak xasida eh, day mel ne lii nag day bokk ci li ko yàlla faye ndax jànkati xasida yi nga xamante ne ñoo dajaloo ñoom ñëpp ñoo dajaloo tànn sëñ Hamsatu ñëw fii di ko fi defe eh, yaakaar naa bi mooy neuvième édition bi su ma jumul ñu di ko defee fii ci jaalibatul maraaxib mm, boo weesoo allié tuuti mu mel nag eh, màggul xasida yi moom Euh, day ne day mel ne waajtaay wi sëñ Tuubaa yoral boppam. ndax day mel ne bu daaw ba ba mu jàllee ba ca suba sa rek ci ci ci lañ tàmbalee waajal boobu déwén bi ndax màggal gi moo toll noonu événement bi moo toll noonu euh, day lu sëñ Tuubaa nangul boppam loo xam ne doxin wi ak yokk gi dafa dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo day mel ne mën ngaa wax ne. Euh, bëriwul luñ koy gis ci taarix benn bis boo xam ne kenn nit moo koy def mu toll nii mu toll te loolu yéen ñi yéen ñi nga xamante ne yéen koy couvrir xam ngeen li may wax bu baax a baax ne fu ne da ngeen fay dem ci bis yu bari waaye bis bu mel nii moom yombut a gis moo tax nag euh, li war ci waajtaay yi euh, moom ba màggal daaw ga jàllee rek màggalu xasida daaw ga tam jàllee rek ca lañ nekk ca di waajtaay ci waajtaay yu déwén yi li ci ëpp na yemb na li wax rek mooy sëñ Tuubaa moo ko yoral boppam li ci ëpp yemu na ñu ngi fii ci këru xaside yi nga xamante ni sëriñ bi daf koy defal xaside yi tànn euh, fii ci dëkk bii mu nekk muy kër yi gis ngeen ko nii ni mu yaatoo euh, bâche yi itam tàmbali nañ ko danaa jox sax suñu béykat mi nga xamante ne mooy yor wàllu bâche yi wàllu programme yi ci ëpp mu wax ko ci tudd ci ndigalu sëñ Cheikh waaye daal li ci ëpp moom tàmbali na tàmbali na bu yàgg euh, ci lañ nekk di di di teeru gan yi fexe ba mu mucc ayib ba nga xamante ne ku fi ñëw mhm. danga am da am daluk mhm. mën a toog jàng xasida mën a jàng alxuraan mën a tudd yàlla ba ngoon mhm. incha allah rabbi ñu def waxtaan wi daanaka euh, màggal gi ñu bëree bëri dañuy jàpp ne ci samedi ba waaye daanaka fi ne moom tàmbali la waaw semaine bi yëpp bu xasee ne bis bi bu desee rek ca la màggal gi di tàmbali ca màggal xasida yi di tàmbali ba keneen ñuy àgg ca bis ba kon daal loolu mooy li nga xamante ne moom lañ ci di ci soññu ñëpp nag ndax xaside yi Sëriñ Tuubaa amul lu dul xaside yi te Sëriñ Amsatu yaakaar naa liggéeyal na Sëriñ Tuubaa ci xaside yi loo xam ne képp kuy béggee xaside yi war nga ko delloo njukkal euh, te yaakaaruma ne maris na ko delloo njukkal lu ko gënal fonkale ko bis bisam bii nga xamante ne mm, jàngkati xaside yi la ciy teral jàngkati xaside yi la ciy berneel moo tax ñun ñëpp di nga xamante ne mbégam rek la ñuy sàkku ñu fas yéene ànd ci ànd ci moom ci liggéey bi ba jeex ba mu gënuñu. jërë ngeen jëf ba tey mbokk yi ñoo ngi ak Serigne mbay kenn Serigne Mbaye nag ku yàgg ñëw ci lii nga xamante ni mooy bisub xasaayat bi ku yàgg ñëw ci li nga xamante ni mooy màggalu xasida yi rek miin nga ko ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy def waaye rawatina ci wàll wi nga xamante ni moom ngeen gis nii muy wàllu baas yi ndax ku ne màggalu xasida yi mën nañ ne baas yi gën a yaatu li ñuy xayma ci ay xel ngeen koy faral di gis ci xew-xew yu mag yi rek day mel ni boo fi ñëwee duñ ne benn duñ ne ñaar ay lañ fiy def kon day mel ni sëñ Bay yor ngeen liggéey bu am solo boo xamante ni képp koo xamante ni amaana euh, teew na fii ci bis bi rek dina gis liggéey bu am solo bi ngeen liggéey ndax macha allah ku fi ñëw rek ba gis nii ngeen taxawoo liggéey bi ci wàllu baas yi sa dina sedd bu baax a baax a baax ana naka ngeen koo waajalee waaw a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim gannaaw ba nu yàlla julli ci yonent bi sant sëñ Tuubaa bu baax a baax ñoo ngi ñaanal sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu bu yàlla suñu mbaram guddal aw fanam wéral ay ciram te woyofal yen bi ko sëñ Tuubaa yen diggam ak euh, jànkatu xasida yi ci mbaggam waaw loolu nga xamee ne moom lañ tuddee aménagement bala ñu cee wax dara mooy dañ ciy sant sëriñ bi ndax bi ñi nga xamee ne ñooy yëngu ci xasida yi yëkkatee raayab fal ko jëwrinu xasida yi mm-hmm. jagleel ko bis bi nga xamee ne moom ci wàccaay wi lanu ne mm-hmm. lim daa di def mooy jaayanteeg sëñ Tuubaa wut pàkk bi nga xamee ne yaatuwaay bi longueur bi cent cinquante la largeur bi cent muy quinze mille mètres carrés mm-hmm. fas yéene fee dalal ñi nga xamee ne dañuy yëngu ci xasida yi njàngan mi tamit booy xool lim fi def ci ab lim ci dayo ci wàllu addiya ngir barab bi dëppoog yil lay xasida yi ak jànkatu xasida yi ba ci mbaag mi nga xamee ne moo nekk ci sunu ginnaaw nga xamee ni lépp ngir euh, jox euh, jëmmi bis bi dayoom euh, jàmbaar la ci bala ñoo wax ci aménagement moom moo njëkk a aménagé barab boo xamee ne daa jiitu ñu topp ci ginnaawam kon euh, buñ jógee ci loolu fekk si ko nag ci quinze mille mètres carrés ku ko dégg xam ne lu nit mësta baas la te moom daa jiitu ñu topp ci ginnaawam mu ne bu fenn am naaj kon liñ fi indi ciblim lim daanaka jege na sept mille cinq cent mètres carrés bëgg mbokki taalibe yëpp Euh, bu ñu yegsee kenn ku ci nekk mën a toog toogin wu yaatu ba bu julli jotee xat-xat du ci am daaga du ci am waaye bu nee aménagement ci wàccaayu bis bi tamit wax parking automobile ndax lu mu gàtt gàtt gàtt li ñuy xayma ci oto dana jéggi juróom-ñett téeméeri oto waaye oto yet fenn fu ci ne bu ñu yegsee incha allahu rabbi danañ fa mën a dugg génn ak sécurisation boo xamee ne kay tëj otoom bu ñëwee xelam dana mën a dal bu ne aménagement tamit wax wàccuwaayu lim bu ñu toll ci doomu aadama bu ñu yegsee ñu fàggul leen ay barab yoo xamee ne danañ ca mën a dem bu buñ soxlaa seen bopp dana mën a jàppit buñ soxlaa si buñ ca buñ ca amee soxla yooyu yëpp it bi fàggu na ci maanaam ay barab yoo xamee ne wàllu woowee duñ ca am ak bu nee aménagement wax wàllu maanaam euh, waañ ndax day benn bis waaye lii Cheikh ba Bassir mi wax dëgg la bin gàmmoo ba ci ëllëg sa la bagage yi tàmbalee wàcc waaye boobaak léegi bagage yaa ngi samp te pareegun kon lépp loo xamee ni nit a ko fi gis diggante yëngu la ak xitma ba keroog bis bi di yegg si lépp nag uh, waajale ko maanaam jànkati xasida yi ak kuréel yi ak uh, bis bi wax dëgg yàlla ñu sëriñ bi ak um, njabootam gii nga xamee ne uh, ñoom la toftal ci sunu kanam rawatina sëñ Moustapha Mouhamadan ñoom ñëpp daal wax dëgg yàlla ñoo ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér te yàlla yàgg leen yàggal leen ci sunu kanam waaye mënunoo waxaat leneen bàyyi nañ kàddu yi ci suñu jëw gi nii taxaw. mu mel ni yaatu na lool baas bi ndax day mel ni daaw euh, ku fi ñëw rek euh, dina am euh, takk boo xamante ni it boo fi ñëwee ren di nga xam ne yokkaat na ci liggéeyam ndax mën nañoo xam ñaata baas lañuy ñuy yokkaat ren waaw daaw boo xoolee baas yi tolloon na ci trois mille cinq cent mhm. jaabante ba ci quatre mille mhm. waaye ren yokk nañ ci trois mille cinq cent waaye yokk googot buñ koy wax mhm. dañuy tàmbalee ci turu sëriñ bi ndax sëriñ bi euh, baas euh, mbaag mi nga xamee ne euh, mi ngi ñi ngi ci liggéey bi te dana noppi balaa booba longueur bi mi ngi yaatoo cinquante cinq largeur bi mi ngi yaatoo vingt huit te boo xaymaa loolu mi ngi toll ci mille cinq cent quarante mètres maanaam moo ëpp suñuy baas buñ ko taqalewul nun suñuy baas nga xamee ne kon foofee mën naa def ñaari junniy nit jëm ñetti junniy nit kon loola nag moom daanaka buñ ko booleek li nga xam ne nun indi nañ ko euh, làmmiñ du ko mën a tudd dañuy xalaat ne li fi nekk ndax mbooloo mi dana ko mat waaye daal mbooloo mu mën a ñëw incha allah bi euh, jataay bi dékku na ko moom baas yi ak bagab yi dékku na ko ndax sëñ bee jiitu ñu topp ci ginnaawam. jërëjëf Serigne mbay kenn mbokk yi yéen a ko gisandoo noonu ci wàccaayu bisu màggalu xasida yi sëñ mbay nag li mu wax day mel ni dafa matale lépp mu doon loo xamante ni kenn mënu koo takk ci mbooloo yi nga xamante ni ñoo fiy faral di waaye képp koo xamante ni dégg nga kaddu yi nga xamante ni moo fi jib rek nga xam ne wàccaayu moom romb na ginnaaw bi ñu gàmmoo ba ci ëllëg sa ba fiñ ñu toll nii nii rek xam naa lañ koy wéyee ak yéen yéen ak Touba Vision semaine bi yëpp incha allahu rabbi lépp loo xamante ni mi am fii ci Touba Jaalibatul Maraaxib ñu fa yéene di leen ko indil kon nees tuuti kon ñu dikkaat ak yéen jëf mbokk yi ba tey ñoo ngi fii ci këru xasaayit gi ci wàccaayu li nga xamante ni mooy màggalu xasida yi waaye ku gis ñi ñu taxawal gis liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi ko fi def fii ci kër gi nga xamante ni lépp loo xamante ni moo jëm ci setal lii nga xamante ni këru xasida gi rek ñoom ci lañ nekk xam naa ñu taxaw ceeg euh, suñu bàyyi Gallo fa yéene koo dékk suñu micro mu wax ñu rek euh, day mel ni bisub xasida bi mu ngi jub si ana woon wàccaay ngeen fi ngeen ci am ndax day mel ni ñu ngi leen di gis euh, ngeen fiy ñëw di setal lépp loo xamante ni jëm na ci kër gi moo xam wàllu lay la wala wàllu bale la wala ba ci setal li nga xamante ni moo jëm ci li nga xamante nit ñi moom la ñuy yittewoo di fi ñëw mu doon ay barab yoo xamante ni it lu laaj setal la jamono ji ana woon wàccaay ci am. bisimilah rahmaani rahim noo ngi nuyoo tey sant Serigne Touba bu baax delloo sant ci cant gañ ko doon cant ci bi mu dimbalee xéewale nu xéewal gu toll ne am lu tuuti lu nu warloo ci barab bii nga xam ne mooy barabu xaside yi te xaside yi di gën a lër di gë gën a rëy ci Serigne bi di tànk Serigne bi noo ngi sant Serigne Touba bu baax noonu nag ñooy waa Jaalibatu Maraaxib bi nga xam ne seetal kadu xaside gi ak fóot yére doo ngay Serigne bi mooy sunu waru gar ci bépp ci bépp wér rek lépp luy set rek noonu loolu suñu waru gar la nuy santaat borom Tuubaa rek ci bis bii nga xam ne moom lañ dëgmal di ko waajal ci suñu kemtalaay kattan ci lay barab bi yëpp ak li ko wër ak setal euh, wana yeeg yëpp noo ci ciy sant borom Tuubaa bu baax a baax a baax ndax ñun amuñu lu dul xasida yi nu bàyyi sunu lépp ñëw jàpp ci jàpp nekk ci lii nga xam ne moom moo man ci noonu lu dara mënut ci noonu lu kenn mënu ci noonu dara mënu ko ci noonu mooy xaside yi moo tax noo ngi woo mbooloo mépp nag di woo jànkati xaside yi ak soppee xaside yi ñëpp ñoo ngi leen di woo ak jànkati alxuraan yi ci ñu ñëw ci ñu waajal bés bi gën a nangoo liggéeyal sëriñ bi ndax liggéeyal sëriñ Tuubaa dong dong dong dong képp rek moo des ci dëkk bi moo des ci àdduna suñ ko doon suñ ko doon def suñ ci saxoon ñun ñëpp àdduna bi day niis dëkk ci kër gu sedd daal di wàcc ci àdduna nanu xam ki ni nekkal kan la nanu xam lan mooy xasida yi xasida yi mooy tànki sëriñ bi dañuy wax ne boo xoolee hectares yi da ngay da ngay mel ni ku tiit sam xel waaye boo dimbali ko doolee borom Tuubaa da ngay gis ne du doon dara ci yow da ngay gis doon dara dara dara ci yow nin koy defee mooy mbooloo mi dañuy sappe lay lépp gannaaw ban ko bayee ba noppi loolu nag ci ku ci cim xel képp xel du ko nangu waaye bis boo fekkee fan koy liggéeyee yëg bi ak bëgg gi sëriñ bi ak li nga xam ne ñoon suñu lekk ak sunu naan lépp mi ngi ci mi ngi ci bëggug sëriñ Touba gi loolu moo tax amul coono amul dara lépp rek ak ak ak ak ci noon goo xam ne amuñu ci luñ ci sikk sakk waaw lépp amuñu ci benn xalaat bu dul ne maanaam bànneex daal la ci noonu bànneex bu doy sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk waaw nu nu nu ci dolli sant xaside yi rek ndax lépp tamit xaside yi lépp xasida yi sunu yaram ñun ak euh, sunu melokaan ak lu lu lu ñu am rek ah, ah, noo ngi koy sante euh, alxuraan xasida ndax mooy moom moom mooy li ma waxoon rek moom moo nekk alali Serigne Touba ji nga xam ne moom moo ko taxoon di dikk mooy li li li li li muy wax rek li muy wax rek yaa kitaabal karim anta habibi wa xalili loolu moo tax noonu daal noo ngi doolee sant Serigne Touba di leen sant yéen it ci teewaay bi ak euh, euh, ak mandarga yi ngeen nu dikkalee noo ngi ci santaat borom Touba bu baax a baax a baax a baax jërëjëfati jërë jëf mbokk yi mu doonoon Serigne Gallo Mbaye yor lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllu setal eh, këru xasida gi xam naa nii rek xam naa ne lañ ko fas yéene di ànd ak yéen saa su ne nekk lépp loo xamante ni am na fi diiran ñuy waajal li nga xamante ni mooy màggalu xasida gi rek ñu indil leen ko kon xam naa ne fii rek la ñuy yemandeeg yéen